asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu doomu ndey siggil sa ma dugal ci mbégte ngir lan jaaxle bi nga xamante ngir xale yi war a yor réew mi ëllëg ñu ngi leen di caaxanloo di leen feccloo di leen def looloo xam ne du jëme réew mi kanam waa Bichra ñëw dañu wax ne ñee ñooy seen petit ñun waa Bichra nag ñooy